jërë ngeen jëf mbokki internet yu aloo Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo teewaat nañ seen jotaay bi ñu duppee Allô Sport tey nag xibaaru tàggat yaram yi dañ koy doore ak défenseuru Sénégal bi di Kalidou Koulibaly moom nag mu ngay wëy rek di jur coow foofa ca diwaanu biti réew gannaaw ba nga xamante ni sax bëri na ay club yoo xam ne daal nañ koy bëgg ci seen équipe kiñ ci mën a jàpp nag jamono ji mu teg ko gët ba noppi bàyyiwu ko benn yoon daal di koy topp rek mu di euh, club espagnol bi di euh, FC Barcelone ñoom nag ñu ngi euh, topp ki nga xamante ne moom moo di défenseuru naple bi ci fàttali moom Kalidou Koulibaly contrat am dina jeex foofa ca Naples ci atum 2023 club italien boobu nag nangu ñoo bàyyi benn yoon ki nga xamante ne moom moo di Kalidou Koulibaly ndax taxawaay bu am solo boobu nga xamante ni def na ko fa waaye tamit li liñ ci mën a jàpp rek mooy waxtaan wa mu ngay gën di wëy rek ci diggante club espagnol bi di FC Barcelone ak ki nga xamante ne moom moo di agent jour bi di wuyoo ci turu Fali Ramadini moom nag ñu ngay wëyal waxtaan wa bu baax a baax gannaaw nag contact yu njëkk yi nga xamante ni mën nañ ko cee jàpp mën nañu gis ne sax dañoo daal di lajj rek ci waxtaan wi ndax kat club italien bi dafa daal di taxaw rek ci ab xaalis bu takk yokku loolu nag mu ngi toll ci quarante millions d'euros boo ko xaymaa nag ci suñu koppar mu ngi toll ci vingt six milliards de francs fa mu ngi toll ci vingt six milliards de français fa loolu nag. nag dañ ko daal di teg rek ci table ji te nanguwuñu daal di koy échanger ak benn jour boo xamante ni dafay jóge foofa ca FC Barcelone kon nag liñ ci mën a jàpp rek mooy euh, ñi nga xamante ne moom moo di club italien bi dañoo daal di euh, nangu rek ñu daal di jox leen somb toll ci quarante millions d'euros suñ ko xaymaa ci suñu koppar mu toll ci vingt six milliards de francais CFA loolu nag moo tax ñu. nemmeeku sax ne waxtaan wa mu ngay euh, wéy bu baax ci diggante club espagnol bi ak euh, club italien bi wax ci leneen sanction bi nga xamante ni FIFA daal dina koy eh, teg ci ndoddu Sénégal loolu nag mu ngi ñeeloon sax éliminatoire coupe du monde deux mille vingt deux bay xew foofa ca diwaanu Qatar ñu jàpp sax ci sanction boobu rek ne FIFA dafa dal di amandoon Sénégal lu toll ci cent douze millions de francs fa ba noppi rek daal ne seen match bi nga xamante ni dañ koy amalaat huis clos lay doon maanaam du am benn spectateur waaye nag li ñu mën a jàpp. jàpp rek ci huis clos boobu noonu dafay concerner rek match éliminatoire coupe du monde deux mille vingt six loolu nag mooy daan yi nga xamante ni FIFA daal dina koy teg ci ndoddu Sénégal gannaaw ñett. ñetti fan rek ñu daal di nekk ci ab congé ñi nga xamante ne ñoom ñoo di parisiens yi daal di nañuy delluwaat ca terrain ya loolu nag gannaaw camp des loges fa nga xamante ne fa la ñuy amal seen tàggatu mën nañu nemmeeku sax ne doomu Sénégal bi nga xamante ni gëjoon na ci terrain bi gannaaw blessure bi nga xamante ni amoon na ko euh, moom Abdou Diallo nag daal di nay delluwaat duggaat ci groupe Paris Saint-Germain bi. ci fàttali nag moom mu nga gaañu woon na ci adducteurs yi loolu mu ngi ñeeloon na mat match Sénégal ak Égypte barrage aller bu coupe du monde 2022 moom nag Abdou jàllo ñu jàppoon sax ne euh, boobu mu gaañoo mu ngi euh, yamoo nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars euh, bi nga xamante ni sax Égypte moom moo daal di dóoroon rek Sénégal benn bal ci dara Abdou Diallo nag mën nañ jàpp ne delluwaat na ci terrain bi mu ngi entraîné ak ñi nga xamante ne moom moo di parisien yi ci loolu nag ñu jàpp ne sax ne moom Abdou Diallo mën na bokk ci feuille de match bi nga xamante ni sax moom mooy dox ci diggante Paris Saint-Germain ak ñii di Troyes dimanche ba ñu jëm wax ci leneen bi yoon nag lu uteeg football lay doon muy euh, làmb euh, gannaaw ba nga xamante ni sax ñoom daje woon nañu ba tafaatin daal di ci am ndam ci kaw Boy Niang 2 loolu nag mu ngi nekkoon fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru décembre bee ñu génn euh, làmb ja nag mën nañ jàpp ne jeexul ba léegi même bu jeexee sax ci arène ba ah, ci wàlluma yoon làmb ja jeexul ndax kat dañoo nemmeeku ne ah, ñooma ñaari mbëri ñu ngi wëy rek di topp ki nga xamante ne moom moo di promoteur bi di Pape Thialis Faye loolu nag lañ koy toppee mooy seen reliquat mu mel ni sax dossier ba dafa daal di teeri rek ci taabalu procureur de la république bu tribunal bu Dakar loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax ñaari camp wu lutteur yëpp daal dinañuy déposé rek ab plainte ah, daal di koy jébbal rek ki nga xamante ne moom moo di Papa Thialis Faye loolu nag ngir som bu boo xamante ni war na koo jox mu deseloon leen ko sax ci seen làmb jooju som boobu nag mu ngi toll ci fukk ak juróomi million loolu nag ki nga xamante ne moom moo di Tafatine ak Boy Niang euh, seen reliquat ñu koy toppee rek kii di Papa Thialis Faye nekkoon ki nga xamante ni moom moo tëggoon bile làmb ci fàttali nag seen làmb jooju mu ngi amoon ci fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru décembre décembre atum 2021 foofa ca arène nationale mbokk yi safoon ñu topp ci seen chaîne Allô Sénégal lii lañ leen andiloon ci seen xibaaru tàggat yaram di leen dig daje beneen yoon incha allah jër ngeen jëf